salaamaaleykum waa tous nos amis internautes de votre chaîne préférée Dakarnet di kontaan ci topp bi ngeen ñi topp Ouzin ngeen di àndal ci gise ak alors gise ak tey dañoo am exclusivité exclusivité bi nag euh, du ñu ko sax commenté dañuy bàyyi ki nga xamante ni moom la ñu invité di ngeen comprendre um peu euh, kan la ak lan moo tax ñu invité ko ñu bàyyi ko mu nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatulah euh, salaamaaleykum wa rahmatulah mbokku Dakarnet téléspectateurs yeeg followers yi seetaan yëpp. seen serviteur Clédor seen moo ñëw dellu si di am ak yéen jotaayu waxtaan ci mbégte euh, pour am ñu ñu leen leeralal incha allah ci fan yi di ñëw. alors ginnaaw bu ñu la bu ñu la masawoo ah bu ñu la masawoo ndax boo xoolee euh, ñi ngi la téyewoon le premier février ah mandat dépôt bi le la. daanaka def nga un mois ci camp pénal ah. alors bu ñu la masawoo naka nga ñu mën a waxee nekk nekkit bi nga fa nekk jafe-jafe yi. non nekkin bi amul amul benn jafe-jafe wax dëgg yàlla parce que maa ngi woon ci condition yu baax ci néeg bu baax euh, am télévision ak bouquet canal ak TNT yëpp euh, am lal ak mat la bu baax euh, ànd nekk bokk ak nit ñoo xam ne ay garde pénitentiaire yoo xam ne ñu ñu am humanisme la ñu ñu ñu ma joxoon cër lañu donc aw ma fa benn problème nekk naa fa nekkin bu rafet te nekkin boobu nekkin bu may sante yàlla la parce que yàlla moo ma dimbali aar ma fu yàq yeggul ci jamono ji nga xam ne euh, dëkk bi dafa amoon ay yëngu-yëngu yu tar parce que su fekkoon ni nekkoon naa ci biti man fore naa ci wéewu bay ni ñu ma doon fexeel ci sama wàllu dund sama wàllu bakken ci wàllu ci wàllu faat laa lay wax ñu ma ci doon fexeel euh, te ci wàllu tuuma tamit euh, mënoon nañ ma teg tuuma bu nekk su fekkoon yëngu-yëngu yi fekkoon ma ci biti yàlla mi nga xam ni buy defar kenn du comprendre moom rocci aar ma fa fa yàq àggul ba dëkk bi dal mu génnee ma ci biti ci lu Macky Sall mënul dara kon ma koy sant yàlla di ko dalalee xelu nit ñi aw ma fa woon benn problème au contraire noflaay bi ma fa am noppalu bi ma mën a noppalu foofu mënu ma ko ci biti parce que damay daw tout le temps tout temps donc permettre na ma tam ma def sax tuuti production intellectuelle parce que bind naa fa tuuti donc euh, macha allah maa ngi ci form ak état di sant yàlla bu baax a baax ci nattu bi. alors ñu ñuy wax ñi ci enquête bi da nga déchargé ki nga xamante ni moom mooy Assane Diouf ak Guy Marius Sagna comme quoi que message bi euh, vocal bi ñoom seen yoon nekk si lépp yow la da nga leen déchargé. mais bien sûr parce waruñu sax jëfandikoo baatul déchargé parce que benn charge amul ci ci ci ci Assane Diouf ak Guy Marius Sagna mais vocal bi ngeen dégg lan moo ci yoonu Guy Marius Sagna euh, te ba noppi anam bi ñu ko jàppee ku dem di doxi soxlaam guddi nga ñëw jël ko yóbbu heureusement digg ko yóbbu mais bu ko yóbbu feneen ay mbokkam dañuy xam fu mu dem. loolu enlèvement la ci koo xam ni amuñu ci moom dara Assane Diouf lan lañ koy reproché bu fekkee ni man sama discussion privée la ñu jël euh, àgguma sax ci turu Assane Diouf ab Assane rek laa tudd ñoom ñu dem fekk ko këram daj ji buntu këram xeex ak moom gëtan ko yóbbu ko ceene ko comme malfaiteur boo xam ni dafa def crime loolu vraiment euh, jalgati àq ak yelleefu doomu aadama la boo xam ni waruñu ko nangu Sénégal. parce que loolu dafa ëpp ba jéggi dayoo Assane Diouf dañ ko yeb dañ ko tooñ Guy Marius Sagna dañ ko yeb dañ ko tooñ man sax mën nañu sama benn audio privé la ñuy exploité pour xool li nekk ci gannaawam déet te loolu du waxul dara lu ñu mën a téye nit mais loolu sax ñoom sax am mën nañoo am lay ci man mais ci ñaar ñooñu amuñu fa benn lay moo tax dafa baaxoon ma leeral ko ci kanamu enquêteurs yi ba noppi mettitlu ko comme ni mu koy waxee nii parce que loolu euh, jaay doole la euh, jalgati àq ak yelleefu doomu aadama boo xam ne dafa war a dakk Sénégal. mais euh, yi amoon ci dëkk bi. ak décès yi ak euh, blessé yu bari yi. tout à fait maa ngi doon suivre actualité yi parce que maa ngi la naan foofu am nañu télé euh, ak bouquet canal ak TNT yëpp donc dañu euh, doon suivre en direct li doon xew yëpp internet rek lañu ñu amutoon mais lépp lu doon xew télé yeeg rajo yi ñu ngi ci doon déglu di di suivre évolution situation bi. alors sa mbokk activiste balaa ñuy gën a avancé sa mbokk activiste bi nga xamante ni mu tudd Tunkara instant bi euh, dañ ko dañ ko dañ ko mi ngi garde à fi nga xamante ni moom mooy États-Unis bi muy dund ndax pa état Sénégal moom moo ko porté plainte di ko toppee terrorisme loolu loo si wax waaw loolu euh, sama xam-xam bëriwu ci li ma xam mooy Assane Diouf bi ko état Sénégal soxlaa dañ ko fenal ñu ko terroriste la te euh, FBI tuuti mu dóor ko bal parce que dañu ñëw en arme tenir ko en respect bu yëngatu woon yëngu bu mu warut a yëngu dañ ko doon dóor bal euh, ci fenu état du Sénégal bi nga xam ne loolu moo tax sax ñu relever euh, Babacar Diagne te gis nañu euh, ministre de la justice ministre de l'intérieur ministre des affaires étrangères di tuumaal askanu Sénégal ci wàllu terrorisme ci manifestation yi am fan yi ay xale yu tuuti la ñu gis ci mbedd yi ñu naan ay terroristes fi nekk ak ay puissance étrangères ak ay ñu bëgg suñu pétrole ak suñu gaz ak. te gis nañu ñun ñëpp jaxaran en direct li xew euh, nit ñi ci faatu terroriste reyu leen gis nañu ay alkaati yoo xam ne yoruñu sax arme de poing mais fusil la ñu yor fusil à pompe door à bout portant ay nit bal ñëpp di ko filmer ñu gis Bignona gendarmerie ñoo tiire ak armée ci ay nit à bout portant ay mort par bal la ñu am te bal yooyu balu force de l'ordre yi la filmer nañ leen lépp leer na kon tey ji képp ku ñu jiñ ay terroriste muy tunkara muy keneen ak keneen ak keneen ñun du ñu mën a wéral xibaar yooyu parce que ñoom loolu la ñu mën a jëfandikoo euh, pour euh, teg loxo ay adversaire politique wala pour fàggaagal leen alors tey l'observateur dafa bind ni euh, je ne fais pas d'appel au loolu si loo si wax en fait ak fii réew mi toll ñoom ñu titré loolu si yow waaw xam nga journal observateur groupe GFM ci boppam Euh, yàgg nañ leen identifier comme euh, ndawal buur comme ñoo xam ni dañuy liggéeyal buur te nguur gi liggéey bu salte ci la ñu nekk bokk na ci di jéem a yàq ay deru doomu aadama di leen jéem a féewale ak askan wi ci loo xam ni euh, du dëgg ci ci ci ay ci ay fen parce que ñoom dañu tiitre fii Clédor Sène je ne fais pas un appel au calme je ne fais pas un appel au calme ñoom fan lañ ko sukkandi ñu ngi ko sukkandi ci benn interview boo xam ne dañ ma topp ba sonn démb ma bañaloon leen ko ñu insister ma nangul leen ko léegi ñu posé ma question ni ma euh, euh, man maa maa wax sax ni je profite de cette occasion li ma li ma bindaa ah, après naa ko firi ci wolof je profite pour demander à mes frères étudiants de d'être patient ils vont euh, suivre bientôt. Ce n'est pas la peine de manifester outre mesure. Euh, ils n'ont pas euh, besoin de manifester outre mesure. Ils n'ont qu'à écouter les décisions de justice qui ne tarderont pas à tomber. Donc vous appelez au calme. Question bindu ko ci journal bi. Mom question bindu ko ci journal bi. Sama réponse la jël. bi ma ne est-ce que vous appelez au calme ma ne ko ce n'est pas un appel au calme mais c'est juste que je suis informé parce que l'avocat qui s'en occupe m'a informé de la situation de l'évolution du dossier des étudiants et je sais qu'ils vont bientôt recouvrer la liberté lii laa wax donc man xam naa ni euh, euh, am na ay ndaw yu may déglu rawatina ci étudiants yi euh, xam naa ni ñoom xamuñu seen dossier fu mu toll ma ni leen nañu tàxeerlu seen dossier mu ngi ci yoon parce que ci bàyyi leen lañ jëm euh, ci bàyyi leen lañ jëm donc soxlawul ñuy manifester parce que xëy na dañ ci xamul loolu. ci loolu la ma ni comme da ngay woote daal ma ko loolu du woote dal mais dama am xibaar yoo xam ne euh, may na ma parce que avocat seen avocat moo ma ko wax euh, ma xam ne léegi ñu bàyyi leen parce que seen dossier mu ngi nekk en cours donc loolu li ma wax yëpp benn baat boobu la ñu rocci ni je n'appelle pas au calme léegi man. ñoom mënuñu maa jaxaseeg àdduna parce que ñëpp xam nañ ni man sama wax duma ko raay sama dëgg duma ko raay ci digg bi laay jaar amul dëgg bu ma ragal a wax ak lu ma mën a coûter parce que wax naa fi lu lu loo xam ni sama sama gëm la ak sama sama xalaat la euh, te te chaque fois euh, dafay leer euh, kon tey jii su ma ne étudiants yi nañu dal ñu titre ni je n'appelle pas au calme que xam nga journaliste da lay poser question boo xam ne da ciy jublu réponse est-ce que c'est un appel au calme su ma nee oui ils vont titrer Clédor appel au calme parce que ñoom loolu la ñu soxla en tant que euh, presse d'État parce que ñoom presse d'État la pour euh, calmer population yi moo tax mën leen non c'est pas un appel au calme pour ñu bañ a loolu c'est juste que je suis informé que seeni avocat ñu ngi ci dossier bi te dana aboutir xëy na suba sax non coupé wuñ ko bind nañ ko mais ci titre ba nekk à la une nga xam ni moom mooy jàll ci revue de presse dañu titrer loola neex euh, je n'appelle pas au calme donc pour peu mënoon nañu bind sax ni j'appelle à la guerre donc euh, ay pyromane lañu ñoo xam ne bu ñu fekkee dal wala jàmm au lieu ñu wut ci saafara dañuy jéem a xamb bi mais loolu nit ñi dofuñu parce que ku lire journal bi yépp dina xam ne li ñuy wax kàcc neen la dañ ko génnee ci contexte pour boole mag askan wi mais loolu du jàll parce que fi mu nekk nii euh, euh, nit ñi am nañu accès à la diffusion et aux médias parce que ñoom rek newuñu fi médium médias yi dafa diversifié donc te ñun yàlla may nañu ñun ay ay acteurs euh, de la société civile ay acteurs citoyens yoo xam ni dañu am euh, ay plateformes de communication yoo xam ni dañu accessible kon ñoom mënuñ ñu jaxasee ak jamono parce que ñun am nañu fu ñu waxee si. est kon da nga leen di suivre euh, pour diffamation. non soxlawul may may may suivre pour diffamation il suffit de démonter leurs arguments parce que ñoom dañu jël benn titre. Euh, pour mu jàll à la une def ko à une ñu revue de presse ko ci li ma wax yëpp loolu rek lañ ci retenir je n'appelle pas au calme donc contexte bi loolu la woon euh, delloo naa ko ci place am te xam naa ni dans mes prochaines nañ ma ci poser question parce que ñu bëri ñu ngi may poser question boobu donc pour wane ni euh, Clédor nitu fitna la nitu ay la ci jamono joo xam ne ñu ngi woote apaisement la et c'est malhonnête parce que ñoom mënoon nañu wax sax ni Clédor appelle à l'apaisement parce que dama ni étudiants yi ce n'est pas besoin ils n'ont pas besoin de manifester outre mesure leur sort est en d'être réglé lii de laa wax ñu wëlbati ko soppi ko donc loolu loolu euh, euh, lu lu lu doy doy waar la donc moo tax euh, ñoom pour ñu jiboog askan bi dana metti parce que li ñu leen di jiiñ toujours dañ koy wone maanaam maanaam jeng ci nguur gi ba di tuumaal ay doomu aadama parce que même yenn accusation yi sax ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy joxe ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy jàllale en appoint à la à la presse bi nga xam ni euh, RTS la ak euh, ñeneen ñu mel ni ñoom. Hmm. merci beaucoup ñu lay jaajëfal waaw xanaa di leen remercier rek ci ci ci jotaay bi xam naa ni dina am yeneen yoo xam ni euh, dinañ ko gën a leeral ci fan yi di ñëw di remercier surtout jeunesse su Sénégal ci seen taxawaay ci seen patriotisme ak ci seen. Euh, euh, taxawaay contre dictature bi nga xam ni dafa commencé woon installé wu Sénégal ba nguur gi dellu ci gannaaw ba tey jii ñun ñu nekk en liberté di wax di beral ngërëm tamit sëñ Mountakha Mbacké ñëpp jox nañ ko cër parce que bi mu waxee ak ñun euh, ci opposition bi laa bokk dañu jël yëpp teg ci suuf parce que samedi bee weesu li naroon am ñu bëri njort nañ ko ba moom mu gàttandu ko ñaan ñu njekk ñu teg lépp ci suuf nguur gi tamit commencé na wàccoog diggéem euh, yi mu defoon defoon ak euh, ak ñun maanaam li ci li dorteel bi mooy suñu suñu suñu libération ak libération yeneen manifestant yi yépp kon ñu ngi am yaakaar rek ni dinañu continuer ci respecter engagement ku nekk ba lépp li nga xam ni dañ ko doon sàkku ci mbedd mi ci ay manifestation ki xeex ñu mën ko am ci table bi ci waxtaan ci euh, teg suñuy kàddu parce que li nit ñi di laaj du lenn lu dul li constitution bi dogal euh, république dafay am calendrier électoral dañ ko war a respecter citoyen bi dafa war a am droit de vote xale yi waruñu téye seen vote seen seen seen droit de vote wala ñu jox leen carte d'identité yoo xam ne ci gannaaw dañ ci bind non inscrit sur les listes électorales euh, manifestation lu constitution reconnaître la euh, donc waruñu systématiquement di tere ay manifestation saa ñu tere ay manifestation affrontement répression lay jur mais saa ñu autoriser ay manifestation bant du damm donc euh, conquête démocratique yooyu ak euh, élargissement espace de liberté yooyu moom la ñu teg ci table bi te je crois que euh, war nañu teg loolu. Hmm. merci beaucoup alors mi ngi noonu ah émission gisee ak ñu dalaloon ki nga xamante ni moom mooy euh, Clédor seen mu jox ñu exclu exclusivité bi wax ak ñun ñu siy jaajëfal bu baax baax di kontaan euh, ci loolu. alors di leen jox rendez-vous ci beneen euh, numéro beneen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd gisee ak mais gisee ak l'actualité occupe une place de choix gars yi jaajëf.